ناس من فوق بين الأخ مقدمة من نعمة اللون مني فاتلون اللي دفعي تقل وخ فرائد الصلاة أي جلي يعني آه من التكبيرة الإحرام ما يكبر حرم البح خم لو يكبر حرم نجول ما يبون قصين الله أكبر lépp lu daga doon ci yow ci yëfu àdduna araam na ci yow dootoo xool lu la neex dootoo wax waxu àdduna dootoo lekk dootoo naan doo taxawee nu mu la neexee doo sa ñëwaat toog te mën a taxaw ka buru xarmal xaraamal na ci yow lépp lu daga doon ci yëfu àdduna kon kabar boobule farata la wa qiyaamun ak taxawaay bi ngay taxaw laxa ñeel kabar bi farata kon boo mënee taxaw nga dem wéedu julli nga yàqu na nga toog mu ne ah illaa li masbuqin ndara kuñ raw kuñ raw ndax buy kabar taxaw bi muy taxaw di kabar farata la wala du farata mu ne kon fa tawilaani am na ci ñaari firi ca muddawan xam nga da nga war a taxaw bu jub allahu akbaru léegi nag boo ñëwee fekk imaam rukkoo boo nar a taxaw ne allahu akbaru imaam siggi mu ne ndax bon duñ la jéggal nga boole kabar beeg rukkoo bi ah xam nga benn kabar ngay def da ngay def kabar amal waaye kabar rukkoo bi doo ko def wala ko da nga dem buru ko doo allahu akbar mu ne kon nag fa tawilaani dégg nga wa innama tushu wa innama yushu dana mu doy allahu yàlla akbar aju màggal dong nag ne na bii rek moo doy nag ne ko nag bu dee nga xam ne mënu ko nag mu ne fa in ajasa ndem lottu na mënut allahu akbaru ci saxata wàcc na ko doon tax muy firi ci wolof d'accord ñu wax ko ci wala ci naar bi wala ci alpulaar bi wala ci saraxule bi wala ci séeréer bi ñu ne ñoom d'accord ci mu wax ci langue boobu nàmp dégg ñu ne d'accord ko mu wax ci langue boobu nàmp waaye li am nag mooy yàlla moom dégg na langue yëpp yëpp la dégg te yéen allahu al ahsamu déedéet allahu asimun déedéet motam ne kon inma yusiu allah akbar dong moy doy benen du ko wuutu beneen du ko wuutu li wax ne ne ne ne fi na ajasa saqata man tuubal naa nit bama ko ne waxal ne ashadu an la ilaha illa allah amna ci ma trente minutes munu ko wax 30 minutes munu ko wax kon li mu wax nii day am de ashadu an laa ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullahi trente minutes mënu ko wax mu jóg ma ne ko comme xol bi moom d'accord na nangu nga dangay dem ab diir nga ñëwaat ma tekki lam yaag ceen yamu takkoon nag yépp kon li mu wax nii am na am na dégg nga ne na bokk na ci farata yi ba tey wa niyatu salaati ak xeena julli xeena julli al muayyanati ga de gu ràññet le gu ñu ndax bu dul loolu dangay ngay naafila naafila amul waxtu kon da ngay yéene julli gu ñu ràññet le ca subaar takkusaan timis ila axiri wa lafsuhu tudd nag ba julli ngay julli di ko ràññet waa si woon dagan na dagan na dégg nga nawaytu salaata suxri ah dagan na dagan na dagan na waaye am def nag déedéet nawaytu salaata suxri yëmal arbaay jaru ko dégg nga ne na wa in taqaalafa ndem dañoo wuutee yante ñoom ñaar da nga yéene ci subaar wax wax ko tudd tudd tàkkusaan bëgg wax yéen naa ci subaar tudd wax tàkkusaan lu fa xew fa la àqdu pas-pas ba la ñuy xool julli ga wér na julli ga wér na innamal a'maalu binniyaati julli ga wér na moo tax noppee gën gannaaw yéene nga jarul wax jël wax ndax du juum dégg nga ne wa rafdu fëgg yéene ba nag rafdu fëgg yéene ba yéene génn ci julli ga dégg wax bi de mubtilun yàq na julli ga yàq na complètement mhm. ittifaaq kay mu ne nag ka salaamin ni ko sëlmal am ñaar rakka yaakaar ne mat na nga sëlmal te julli ñetti rakka wala ñeent la nga sëlmal yaakaar ne mën na jël ko yàqul nga salaam yi jàpp ne mën na nga ne ñokkee dem yàqu na mu ne aw sanni yi wala mu jortu dafa sëlmal dafa jortu dafa sëlmal ak ci jortu ne julli ga mën na te benn ci ñoom ñaar amul fa atam bi na leen bu ma julli ga naafi la yàqu na mm-hmm. in taalat ndem mm-hmm. naafila ga taxaw nga jàng lu yàgg yàgg yàgg mm-hmm. aw raka wala mu rukkoo ci koo xam ne mënul jàng ko njuree yàqu na ba dégg nga wax bi masali fo mate de fala matali bi xam ne dafa yaakaar ne julli gi mën na dégg nga wax bi de ko yaakaar ne julli gi mën na mu sëlmal wala sëlmalul sax moom pour mu mën mu indi mu jóg indi yeneen ñaar rakka yéen ci naafila dafa am rek xelam jaxasoo mu yaakaar ne mu sëlmal na sax far te sëlmalul mu jóg indi yeneen ñaar rakka nam ma ca naafila jàng lu yàgg doog rukkoo wala mënul jàng sax waaye rukkoo na jul ga yàgg jul ga yàqu na jul ga yàqu na bu lum koy rek yàqu na dante dante dante yàggul na mu ne wa illaa nag ndem nga xam ne njàng ma yàggul wala rukkoowul kon falaa julli ga yàqu bu njàng ma yàggul rukkoowul julli ga yàquwul dégg nga mu ne ka an lam yasunnahoo ni ki jortu sax ni kay julli jortu woloon ne julli ga mat na dafa yaakaaroon ne ci naafila ne rek moom jortu ne doon julli farata sëlmal na ci farata ba mm-hmm. dugg ci naafila mm-hmm. dafa fàtte ne ci farata la nekk mm-hmm. moom ci naafila la nekkoon wala mu yaakaar ne ci benn ci beneen farata sax dafa doon julli tak doon yaakaar ne mu ngi ci tàkkusaan sax mu julli ci benn rakka wala ëpp rakka fàttale ko ne man kat ndekete ne mu ngi tàkkusaan ci tisbaar laa nekk goog julli yàquwul de goog julli yàquwul de la mu julli islam da koy considérer da aw asabat wala mu fàddu yéenam mo dem yéenam ba ginn ci xel fatina ko sax gannaaw bu mu bu nopi xelam dem na ci lenen mu ci mbiru aduna wala mu ngi xalaat yawmal xiyamati xelam génn na ci bo am ci luma raka wala lu ko ëpp julli ga yàquwut moo tax masal bi ngay déggee ne ku xaccoo jiite xam nga li ngay xaccoo ku nekk imaam xam nga li ngay xaccoo suma gi dañuy xesen di bébbali di ŋóomi di gesto su ñu newu ci duñ ko bar sax allah ko bar sax duñ ko wax te lépp yow imaam yaa ko gàddu moo tax ku xaccoo nekk imaam rek xam nga ku julli di gesto fu la neex di xesenu ah, di kën dugal sa portable ci sa poos ak sa caabi muy keleng keleng xamul sa xel neeru fa te nag yow imaam yaa koy gàddu moo tax kuy xaccoo imaam rek xamoo li imaam mun awla yoon wi wala yéenewul sax rakkaat yi rakka yi yéenewul ñeent rakka la julli wala ñett wala dafa yéene julli gi rek julli gi yor na awil adda wala yéenewul sax joxe xam nga dafa am lu ñuy wax xaal xaal day wax bu mu taxaw di kabar rek xaal bi moo xam ne kii day fay wala kii day joxe donte yéenewu ko wér na aw dit dox wala safaan ba day fay yéenewu sax fay dafa yéene rek jur ga mën dégg mu ñu wàcc farata ya wa niyatu iqtidaa in wa iqtidaa il ma'muum wa niyatu iqtidaa il ma'muum ak xéenag royub ma'muum maam moom bu ñu koy jiite dafa yéen a roy imaam bi bu dee nga xam ne yéenewul roy imaam bi jullim du baax kuy tukki dem gaaru ceer ba dugg ci autoraay bi dangay am ticket booy dugg ci biis bi bëgg a dem da teel a bindu bu ne biis bi dix lay départ dix lay départ demal neuf heures nga bindu sinon mu fees kon yooyu tamit nag bu fekkee imaam bi lay jiite da ngay jëm hu ticket mu si yéene bi da koy yéene imaam roy ci bi wante boo xebee imaam bi xaatunul la lu doy waar la imaam mooy moom bon ñëpp waaye ku ko xeeb imaam xaatunul la mukk xaatunul ni yoy toxti daayu ma ak yéen ak royu ca imaam ba ba ca daga da loo ñeel ko moom ma bi du xooloon dugg xala ma arama ca armal bi ci ay imaam imaam ba bu ñëwee fekk imaam bi di julli xamul imaam tisbaar la julli wala taxsaan la julli wala bisu te bisu àjjuma la wala xamul sax imaam jumaa lay julli nu muy def nu muy def cinq la ñuy fekk imaam julli cinq heures xamul imaam tisbaar lay julli wala taxsaan la julli te bisu àjjuma la wax xamul sax jumaa lay julli moom imaam bi xam nag masala bu waar la ndax julli jumaa gannaaw cinq heures moom neexul dégg kon nu muy def dafa naan yéene na duggee na imaam duggee rek na imaam armalee rek yéene naa duggee noona moo tax wajax daga na loo ñeen imaamam bi du xoolun tàbbi ci julli ga xalaa ma axrama bi ci na mu armalee ak imaam imaam bi dégg xam nga li tax ma ne la xamul ndax eh, day julli juma sera moo ko wax du xalaat sera moo ko wax jullit juma moo wuutu jullit tisbaar kon waxtu tisbaar yëpp jumaa ko moom kon lu commencé une heure demi bu jant bi so ko moom ci bisu àjjuma dañ ko ci kanam bu soobee yàlla dégg nga incha allah moom julli ga julli déggal bisab tixaa bisab tixaa ci jiitu yéene ba ca kabaru armal ba yàqu na in kasaro ndéem li nga jiitoo bari na ndéem bari na ci wàllu grammaire nag li moo li ñuy wax idaafatul masdari li faa'ilihi wa xasul maf'uli maf'ul bii bisab tixaa أي بسبق النية تكبيرة الإحرام من يكون بسبقها ها بسبقها إضافة المصدر لفعله مصدر بي دافع فاعل به دافع فاعل به قبل في يكون سبق النية التكبيرة الإحرام كون نية مودون فاعل به يعني من وبطل يقنا بسبقها تجدك هنا به كبر عمل ba moo saf moo saf moo saf mafool bii ba moo saf mafool bii ba mu ne la waaye in kasru ndem bëri na mu ne wa illaa ndem jiitu ba bëriwul nag fa xilaafun am nañ ci wuute am nañ ci wuute dégg nga moo tax benn borom xam-xam daf ko wax daf ne wan wi salaata ba ñu xam te te waraa bila taaqurin wala taqaddumin fa in taqaddamta fa bil kasiri tabtu wal xilaafu bil yasiri wala bi laa taqu laa taaquri moo jiitu war ni salaata ba la xam si tawra bi laa taqaddumin wala taaquri ok bi laa taqaddumin wala taaquri war ni salaata na nga yéene julli nga ne ko waaw kañ laa ko yéene mooy bañ alhamsati diggante alif gu rëy ga waraa ca raaga bi laa taqaddumi bu yéene ma jiitu alif ba wala taaquri bu mu ko mujj fi taqaddamta boo jiitalee yéene ba kon fa bil kasiiri ci lu bëree baree bëri tabtulu du léegi yàqu wal xilaafu wuute ba na am na biir ci lu néew lan mooy lan mooy lif gu rëy gi mooy baatu allahu akbaru xamsa gi njëkk ci baatu allah bi xamsa gi bala nga arraga dugale yéene ba foofa boo ne ah, bu la na aral te yéene ba dugg bu yéene ba jiitoo lool julli nga yàqu na bu jiitoo tuuti am nañ ci wuti ku ñàkk wuti bee gën ah wan bi salaata bayna alhamsati wa raa bila taqaddumin wala taaqura fa in taqaddamta kasiiri tabtul wal xilaafu bil yasiiri dégg nga kon loolu demee bu faatihatun faatiha farata la bi harakati lisaanin yëngal làmmiñ bi xalaa imaam ci imaam bi fasin ak koy julli wa in lam yusmih doonte déggalul nafsuhu boppam sax wa qiyaamun ak taxawaay bi muy taxaw laxaa ñeel jàng faatiha ba kon fay jib dina war taallumaha jàng faatiha in am ka ne ndim jàppandi na ndim jàppandi na bu jàppandiwul nag mu wa illaa ndim jàppandiwul mu jàng faatiha itam ma nooree ci ku jàng faatiha ku jàpp ndul jàng faatiha nooree ci ku jàng ndem ñoom ñaar jàppandiwuñu mënta jàng faatiha amul ku ko ku mu roy kon fal mu fa liñ tànn mooy suqutuhuma waddug jàng ci ca mukallaf ma faatiha ba ak taxawaay bu yëpp kon wàcc na ko xam nga nu muy def day kabar rek doo xam ne yàlla yàlla xam ne diw doo xam ne yàlla yàlla xam ne diw ba yàgg rek mu ne allahu akbar pour si bi sama allah la yóolu hmm. loolu lay def de hmm. gannaaw mënut a jàng Fatiha amul kum lay day taxaw rek yéene bu taxawee ab diir rukkoo hmm. si gi dem sujjóot xanaa boo dina mel ni jigéen jë mère bu doon jàngal bay dem ba ci yegg Isaa Dia ku réer la nag bañ jàng yedd xuloo na maa ko doon jàngal mag la na léegi bi ma ne xuloo na bi ne waaw daraame ma ne ko mu yedd lu moo xuloo yedul moo xuloo ma ne ko li nga jàngatu ko naqadi fi ma la woon baax aminte géey fi ma la woon lay nisaan kon ñu tax foofu suba insha allah sadaqallaahu al-aziim wa balagha rasulul kariim